الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني barab bi it namoon la lool suuf si namoon la mboolam it namoon la waaye yitte yi xat na boo xam ne xam nañ ne bëgg noo dimbali ak bëgg noo xet rek moo waral jéego yi waaye du sag jot du sag féex du sag yaatu noo lay nuyu ci turu sëñ Basiiru mbooloo mii nga xam ne ñoom la àndal ñu di la siyaara si mbooloo moo xam ne moom mooy seen jëwriñ di kenn ci yow ñi ngi tàmbali woon siyaar bi bis bi nga xam ne yaa ngi dem ci alxaaji baara doon ko jébbali caabi jumaa yi daarul minan boole woon ci adiya ji tedd ca boole woon ca bis booba la mbooloo mi amoon pas-pasu di la roy ca doxin woowa doon ko siyaare si moom it bi ñu am yitte ak xemam def def ko siyaar boo xam ne at mu jot ñu siyaare si ko a yow lay siyaare si waat yaay leen jabar ñun ñëpp sëriñ Basiiru mooy seen jëwriñu ànd na ak ñoom ak ay lenn ci ay kilifa yoo xam ne ñu ci biir mbooloo mi bokk na ci sëriñ Modou Cheikh Diouf ak sëñ Pape Mbuub ak Alhaji Fall Tabara ak sëñ Sidi Jenn moom sëriñ Sëriñ Jenn ak Cheikh Ñaan Masistra ak njabootam moom it ñoom ñëpp ñi nga ànd ci biir mbooloo mi Cheikh Ñaan moom mooy président tribunal d'instance bu Mbàkke ñëw na ànd ak njabootam gépp gunge si sëriñ Basiru ci siyaar bii nga xam ne moom la ko ñi nga xam ne mooy seen jëwriñ daan siyaar si at mu jot ñu jël siyaar ba bépp nag def ko benn ndax sa jëm ji tëdd ji rek mooy ki ko noo ngi lay siyaara bu baax ci turam moom mii ak mbooloo mi nga xam ne ñoom la andal di la wax massa di la wax jërëjëf di la wax ndokk sa di la ñaanal suñu borom mu yàggal la fi te wéral la dolli la ndimbal dolli la sutura wammatal la boppam ci barkeb Serigne Touba ba fépp foo bëgg liggéeyu Serigne Touba bi àgg fa suñu borom dogal loolee am te ñu ànd koog yow noo ngi lay sant bu baax Serigne Bassirou nee na mbooloo mi nga xam ne mooy seen jëwriñ mi ngi nos buum gi nos ci seen bakkan boole gi ci boppam. tegaat ko sa loxo di yeesal seenu njëbbal tey jii fi sa kanam di yeesal seenu njëbbal di yeesal seenu njuréel te lépp nag ñu ngi ko tënk ci ak taalibe ñoo ngi lay joxaat seen bopp joxe gi joxe boppam joxe waale na boppam képp koo xam ne mooy sa jëwriñ njëbbal googu ñoo ngi koy yeesal bu baax te yalwaan nga nangul leen ko noonu mi ngi yóbbaale it mboolem taalibe mur yëpp ci biir njëbbal googu ak yeesal googu ñu yeesal seen taalibe di la siyaar bu baax baax ndax ab taalibe deful lu gën a ñor di siyaar ab sëriñam ak di ko wut addiyaam ak yàgg fi da wér nee na mi ngi sàkku ci mboola mi fi teew ñun ñëpp kenn ku ne wax ci ab ab xolam ak ci am xelam ak ci aw làmmiñam ñi nga xam ne ci lañ koy déggee suñu borom yàggal la fi te wéral la ñaan gu dëggut suñu xol goo xam ne duñ ko wax ngir dañ koo tàmmal seen làmmiñ waaye wax ko wax suñu biir xol ngir yéene guñ la ko yéene ak xam guñ xam bu wér a wér la suñu borom bu la fi yàggalee suñu njëriñ lay doon ñun ñëpp doon njëriñul jullit ñëpp yàlla na la fi suñu borom yàggal te wéral la àggale la sa liggéey ak say naal ak say nëbët te àggaleel na ko nu ci yow ci barkeb Sëriñ Tuubaa lépp lu des ci kàddu yi ñun ñu yàq solo ñii la dese waaye sëriñ Basiru lu jot sëkk lu mat sëkkit la wax njaboot gaa ngi nii jëmmam jaa ngi nii moom it noo lay seeraat ci moom ab taxawaayam ci barab bi ak ci tund wi mi ngi ci li mu a ne mel na it ni mu war a ne ni mu war a mel lu mu ci biir barab bii di Touba Mboul ak li wër Touba Mboul dana ka nga xam ne moo ko ko yëgal dana yëg ne sëñ mi ngi ci li mu war a nekk woyof na toy yaatu na lool te it kenn mboolem lu ko war ci diggante mag dëkkandoo yi ak ci biir dëkk bi mi ngi ci li mu war nekk xoolawuñ ko nag doomi sëriñ Muntaxa waaye sa jëmm ji tëdd yii lañ koy xoole ndax ndaw lu ne day amee daraja yi ka ka ko yebal sa jëmm ji tëdd yii la ñuy xool ci moom moo tax xëy bu ñu ko fenn tey bu ñu ko defoon duñ ko teg fenn sa jëmm ji tëdd yii la ñuy xool ci moom tund yëpp it loolu la ñuy xool ci moom sa jëmm sëriñ Muntaxa la ñuy xool ci moom waaye xooluñ ci moom doomi sëriñ Muntaxa kon noonu lay seeral la yitteem ak farloom ak taxawaayam bu rafet ci nun ak ci dëkk bi ak ci tund wi lii moo doon kàddu sëriñ Basiru noo ngi sant bu baax tey jégalu bu baax ci guddal gi asalaamaaleykum wa rahmatulah di rafet na lool ñu bàyyi ko ci sëriñ Basiru Mbàkke sëriñ bi nee na dégg na ko mi ngi leen fay am nuyoo yéen ñëpp sëriñ sëriñ bi nee na dégg na kàddu yëpp nee na dégg na ko déggu xol waaye dégg na ko déggu xel mu ne waaye dégg na ko déggu bànneex gu mat sëkk mu ne ci seen ànd bi ngeen ànd ak Cheikh Mahamadou Bassir mii sëriñ bi nee na am na ci bànneex bu rëy rëy rëy na bànneex boo xam ne mën na ko wax ci làmmiñam mu ne loolee daf koy delloo ci bis bi nga xam ne ci la ko Cheikh Mahamadou Bassir joxoon ndigal moom mii sëriñ Mountakha ngir mu ñëw fii ci dëkk bi mu ne la ko jiitu it fii la ko indi fii ci Touba Mbulu. mu ne fii la defee lépp moom sëriñ bi. mu ne kon nag ak cantam. ci tax ci taxawaay bii ngeen taxaw. ak ni nga xam ne noonee la ko sëriñ max Mahdi waxee. mu ne loolee cant gam ci am. mu ne suñ borom mi ko def ci moom. moom rekk moo ko xam. mu ne Cheikh Mamadou Bessir mii nga xam ne moom moo joxoon sëriñ Mountakha ndigal fii ci Touba Mbul muy dëkkuwaayam mu ne kon cant gi yëpp daf koy delloo ci moom di ko sante suñu borom mi ñu boole ak moom mu ne di ko sant cant goo xam ne amul fenn fu mu yem mu ne loolu lépp nag li firndeel cant gi mooy seen taxawaay bii yéen waa Touba Mboul mu ne àgg na ci moom fu sore sori moom sëriñ bi mu ne seen taxawaay daf koy delloo moom sëriñ bi fa mu jóge woon lépp mu def ko cant ba mu agsee fii mu ne lépp mu def ko ak cant ba mu agsee fii mu ne kon ngeen xam ne moom mii sëriñ bi xolam sedd na guy mu ne dolli ngeen ak yaakaaram mu ne xelam it gën naa dal ci seen taxawaay bii mu ne loolee taxawaay bi sor na ci moom lool nee na mi ngi ñaan bu baax a baax mu mi ngi ñaan bu baax a baax suñu borom gën ñoo gàttandoog tawféex sëriñ bi ci seen lépp nag ci seen biir ci seen biti ci seen tey seen ak seen tey ak seen ëllëg mu ne bu ñu ko gàttandoo mu ne suñ lépp dana defaroo dina defaroo ci suñ biir dina defaru suñ biti defaru ci dunduk àdduna bii mu ne ñu gën a am defaru ci dunduk ëllëg mu ne kon loolu mooy yéene moom sëriñ bi mu ne mooy yéenam ci képp ku mbokkal Sëriñ Tuubaa mu ne ngeen xam seen bopp loolee kenn jiitu leen ci yéen ñii eh, mu gën a fas yéene feeñal ak jaayanteem di leen ko seereel mu ne di gën a feddali ak laxasaayam di leen ko seereel fas yéene ko ànd ak ñun ñëpp. kon nag jërë ngeen jëf yàlla nañu suñu borom gën a gàtt ndox ndox yi sëriñ Tuubaa bañ mën a sax ci jaamu yàlla suñu képp kàttan liggéey ko sëriñ bi suñu képp kàttan jërë ngeen jëf mu ne loolee moom la doon wax bi nga xam ne moom la moom la fi nekkal man lu nekk ci xolam li nekk jàpp xelam mu ne loolee rek la ko mën a gañale suñu diggante ak yéen ñu fas yéene ko am rek nag incha allah rabbi mu ne ñu ngi leen di càkk càkk bu rëy rëy rëy seen kàddu bopp mu ne yitte ji nga xam ne ngeen ko ak taxawaay bii nga xam ne ngeen ko mu ne loolee moom la ñuy cat cat boo xam ne amul yamuwaay xanaa di ko seeral Serigne Touba rek ndax moom mii soxlu dara la Serigne bi rek la soxla moom lañ soxla tey moom la ñuy soxla ëllëg. alhamdulilah alkarim silmilan ala sixaali bi furudin wa sunan sakartuhu li an xad saxani li watani bi nafa ma